mbokk yi alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi war a jël tey ay quarante-cinq ci suuratu naml fi suñu borom di waxee ni walaqad arsalna ila samuuda axaahum saaliha alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi yeesal sant suñu boroom ci lim ñu yombalal ñu ñëw daje ci ab néegam di fas yéene jël ay bind ci ab téeréem mu nekk loo xam ni buñ fi yokkuwul woon dara ci xam-xamit toogaay la boo xam ni ci yi gën a tedd la yu doomu aadamay toog ci kaw suuf muy toogaayub jaamu yàlla kon dañuy ñaan suñu borom yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu nangul tey mooy ñaar fukki lu fan ak benn ci weeru muharram ci 1442 ci tombeeg le 9 septembre ci 2020 incha allah bu dee Cheikh Ousmane pare na mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk barakallahu fiikum aouzu billahi min asheytaani irrajim suñu boroom mu ni wa laqad arsalna ila samuuda axaahum saaliha ñun de yónni woon nañ ci giir bu ñuy wax samuud seen doomu ndey ja yonent yàlla saalih an ibudu llaha mu ñëw na leen jaamu leen yàlla fa ida hum fariqaani yaxtasimuun ci noonu lañu nekke ñaari mbooloo ñaari kuréel yuy dagg sante qaala yaa qawmi lima tastacjiluuna bisayi'ati qabla alxasana mu ne ay waayu saw xeet lu tax ngeen di yàkkamti lu bon li jiitu lu baax la leen yàlla dig lawla tastaghfiruna allah la'allakum turhamun anu lu teewoon ngeen jéggulu seen boroom ngiree ñu yërëm leen qaalu tayyarna bika wa biman ma'ak ñu ne ko ñun day gaaflu nañ ci yow yaak ñi nga àndal ñépp qaala ta'irukum inda allah mu ne déedéet seen gaaf day ma nga ca yàlla bal antum qawmun tuftanuun li am kay mooy xeet ngeen boo xam ni bu ñuy fitnaal rek lañu wa kaana fi lmadinati tisatu rahb nekkoon na ca biir dëkk ba juróom-ñeent ci mbooloo yufsiduuna fi l ardi wala yuslixuun ñi ngi doon nekk di yàq ci kaw suuf te ñoom duñu yéwénal qaalu taqaasamu billah ñu ne kaay leen ñu waatante ci yàlla lanu bayitannahu wa ahlah ne daan ko betti ca guddi moom njabootam summa la naqulanna li waliyihi gannaa bu ñu wax féeteem ma maa shahidna mahlika ahli ñun day fekke wuñu seede wuñu alkaangeeg famim wa inna la sadiqun te ñun day ñu dëgg lañu mi ngi noonu mbokk gis nañu bi ñuy dalee téere bi suñu boroom mi ngi doon nettali histoire jaamam ba Muusa gannaaw ba mu jàngal ñu ñaari jaamam Daawuda ak Suleymaan tey mu ñuy jàngal benn jaamam boo xam ne mi ngi ko yónni woon ci giir bu ñu wax Samuud mu nekk ci biir Arabie Saoudite fa ñu dëkkee woon tey boo demoon visité ko boo duggoon ci internet bi it gis ko saalix bi mu ñëwee wax la yeneen ci jiite woon yépp wax ca mooy kay leen ngeen jaamu yàlla ca mbokk jaamu yàlla balaa balaabal mooy fokk dañ koy wéetal bañ koo bokkaalee looloo tax ba suñu borom ne yéefér yi qul yaa ayyuhal kaafiruun laa taabuduuna ma aabudu mi ngi noonu nekku leen di jaamu yàlla lu tax parce que yéen a ngi koy bokkaaleen loolu bi mu ñëwee kon mu ne leen wéetal leen yàlla ci jaamu gi ngeen koy jaamu dëkk ba séddoo ñaari mbooloo mbooloo mu néew mu ñàkk ay daraja gëm yonent yàlla soola amma kilifa ya ak mbooloo ma gën a bari weddi saalih loolu taxoon na ba dañ doon nekk di daggal sante ci seen biir dagg sante boobu suñu borom mag ñu koy nettali lenn ci suratul araf fi mi naan wa qaala almalau alladina stakbaru lilladina studifu liman amana minhum ataalamuna anna salihan mursalun min rabbi kilifa yi dañ doon ñëw ne waaw yéen jàpp ngeen ne saalix yàlla da ko yónni ci ñun su ko defee ña gëmoon ne ñun day inna bima ursila bihi muminuun ñun gëm nañ liñ ko yónni kilifa yi ne ñun nag loolu ngeen gëm loolu lañu weddi te mooy kon ñoom weddi wuñu woon saalix en tant que saalix waaye lim doon wax lañ munta nangu ñu ngi noonu loolu nag suñu borom yàlla dañuy nettali ci loolu wax nag réaction salih alayhi salaam lan la wax xeetam mooy ay yéen saw xeet subhana alladi yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal malaikatu min xiifati ay yéen saw xeet du tax ngeen di yàkkam ci lu bon di dal seen kaw avant lu baax lu teewoon ngeen jéggulu seen borom ngir ñu yërëm leen te mboolem yonent yi yàlla yónni bu ñëwee li ñuy wax seen xeet mooy la seen maam nuux waxoon istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yursilu sama alaykum midrara ba jeexitul aaya ya su ngeen nangoo bàyyi shirk nangoo tuub topp ma yàlla ubbi xéewali asamaan ci yéen ubbi xéewali suuf ci yéen amma su ngeen bañee nag yàlla indi mbugal waaye xawmu sa samud fa seen maam jaaroon lañ jaaroon dañoo weddi bañ weddee nag yàlla commencé teg leen ay nattu ngir ñu dellu gannaaw te loolu mbokk dañuy gis ni mboo demee xeet yi yàlla yónni noonu la doon def ak ñoom bi natt yu commencé dal seen kaw ñu ne voilà yow nag saalix yàq ñi nga gë ñi la gëm yéen a tax ba lii di ñu dal gaaflu nañ ci yéen saalix ne leen déedéet natt bi leen dal mooy li ngeen di tudde gaaf loolu ci yàlla kese la jóge mu leen di natt ngir ngeen dellu gannaaw yàlla rek moo leen di fitnaal doonte ne ni yow julit da ngay gëm ne gaaf doomu aadama yi dañ ko yëg waaye nag amut yàlla mooy dogal lu ko neex ba tax yonent bi alayhi salaam ni soo demee ba yëg ne ak gaaf daa ñëw ci yow na nga wax allahumma la xayra ila xayruk wala tayra ila tayruk wala ilaha xayruk e yàlla day amul gaaf lu dul dogal bi nga dogal yiw amul lu dul yiw bi jóge ci yow amul kenn ko yooyu ñu koy jaamu ko dul yow borom bi nag subhanahu wa taala nee na bi loolu amee ca la yàlla tënk fii histoire bi tënk histoire bi mooy yonent yàlla saadax yàlla yónni lu ko ak giléem giléem ga xeet ba rey nañ ko saalih menacé na leen ne leen toog leen ñetti jour daa leen may léegi mbir yàlla ñëw ci yéen bi loolu amee la am juróom ñeenti ponkal kilifa yu nekkoon ci dëkk ba rëhët mooy mbooloo rek ñëw ne ñun dey balaa dara di dal seen kaw kii moom nañ lijjanti ay mbiram nañ ko bett guddi rey ko moom njabootam su ko defee ña nga xam ne ñooy ay kilifaam ñu waatal leen ci ni fekke wuñu fuñ leen rey te loolu it mbokk nekkoon benn mbir boo xam ne amul benn yonent lu dul ne xeetam ya sus ci moom dañ ko doon jàppale doonte ne gëmuñu ko loolu moo daral suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam borom bi nag nee na lii mooy la nga xam ne moom la ñuy def amma suñu borom mi nga xam ne moo fekke lépp moom moom it am na lu mu def mi ngi doonu Cheikh Ousmane barakallahu fikum kon suñu borom mu ne wa makaru makara noonu lañu fexe am pexe wa makar na makara ñu nit ñu fexe am pexe wahum la yashurun te ñoom yëguñu ne yàlla ngi leen di pexeel fanzur kayfa kaana aqibatu makrihim xoolal naka la nekkee mujug seen pexe ba anna dammarnahum mooy ñoom day faagaagal leen lañ leen dammarhum mooy desulul kenn ca ñoom dammarnaahum faagaagal nañ leen wa qawmuhum ak seen xeet ajmain boola seen fa tilka buyutuhum seen dëkkuwaay yaa nga ne xaawiya doon lu vide kenn nekkatu fa bima zalamu ca lañ tooñoon inna fi dalika la aaya nekk na ci lii day kawtéef li qawmi yaalamuun ñeel xeet boo xam ne dañoo xam wa anjayna alladina amanu nii lañ musale woon ñi nga xam ne dañoo gëm wa kaanu yattaquun te nekkoon ñu ragal yàlla wa luutan id qaala li qawmi fàttalikul luut ba muy wax xeetam ataatuuna alfahishata wa antum tubsiruun am ndax da ngeen di dikkal ñaawteef te mooy ak ak ngóor jigéen te yéen a ngi doon di gis lay yu leer ni lii baaxul a innakum la taatuuna rijaala shahwatan min duni nisaa am ndax da ngeen di dikkal góor ci shahwa muy bànneexu sëy lu bokkul ak jigéen ña bal antum qawmun tajhaluun li am kay yéen xeet ngeen boo xam ne xeet bu sànku ngeen bu réer ngeen mi ngi noonu mbokk suñu borom nee na ña ngay dem di pexe te agresseur yooyu nga xam ne ñooy juróom-ñeenti kilifa yooyu yeneen ci yàlla saalix daa amoon benn place boo xam ne bu guddee dafay rocceeku dem di jaamu yàlla ñu ne nag nañ ko bàyyi bu génnee rek ñu rey ko ñi ngi nekkoon ci benn montagne boo xam ni daa am benn grotte muy benn xunc fa la saalix waroon a jaar ñu piège làqu foofu suñu borom yàlla lam jëkk a def mooy dalee na fatt ñoom ca montagne ba mënatuñoo génne ci gannaaw ba nag mu doog a alak la nga xam ne mooy seen xeet donte ne lu mel nii suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam it nii la waa makka daje woon ñoom it ca seen pexe moom la borom bi di wax naan wa id yamkuru bika alladina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka daje nañ ñoom it ne kii nañ ko rey pare ci moom lan mooy fexe conclusion réunion ba mooy mboolem famille ci Makka nañ ko jël benn ponkal heure bu génnee di dem Kaaba ga ñu cawandoo ko jaasi bu ko defee waa Bani Hashim dañ mën a xeex ak waa Makka gépp lañ man laaj diir ñu cotiser jox leen suñu borom yàlla ñi nga xam ne fekkee ne pexe ya nelawloo leen yeneen ci bi génn jëli Aboubacar ñu dem làqu je ca xaaru sawr ba ba histoire ba ni ngeen ko yàgg a déggee muy amit ci ne képp koo xam ne yaa ngi fexeel ab julit la way xamal ni suñu borom yàlla it mi ngi lay fexeel wala fi ñoo naa ni yéene néeg la borom a tey faral heure booy jóg di fexe nga la way bàyyil xel loolu yow it julit wékkul ci yàlla jalla wa ala bari na tey ay nit ñu bari ñu ngi takk ndigg ya takk loxo ya pour lan mooy bañ ku leen di fexeel di leen liggéeyee déedéet mbokk jurit fexe ba du loolu boo bañee mucc boo bëggee mucc ci kaliy liggéey dellul ci yàlla jàll wa ala comme na nga xamee ni nii yonent bi alei salatu wasalaam ak yonent yi ko jiitu yépp daawuñu wékk lu dul ci yàlla jàll wa ala borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne alak na waa sàmmut mboola seen ca mooy ña def lu bon ak ña deful ndax ñoom ñëpp bokkoon lu ñu gëm seen dëkkuwaay yaa ngi ne kenn nekkatu fa waaye dañoo musal ña gëmoon yàlla ca ragal yàlla loolu it mbokk suñu borom bu ñu koy nettali pour lan la mooy yonent yàlla saalix woote na kay dem ñu gëm yàlla wéetal woote na ne jéggalu leen seen borom ngiree yàlla yërëm leen mooy wane na yow julit heure boo nekk ci xat-xat heure boo nekk ci jafe-jafe bari lal istixfaar tuubal dellu ci yàlla di toroxlu ci yàlla da ngay gis na lu mu yàgg yàgg suñu borom yàlla dana la musal comme na musale woon ña àndoon ak yeneen ci ya loolu mi ngi noonu anjayna alladina amanu wa kaanu yattaquun loolu mbokk di benn page boo xam ne romb na suñu borom yàlla alak na waa samuud gannaaw ba mu tëb lu bari ba ñëw ci jamono ibrahim alayhi salaam mu am benn doomam ay doomu magam la woon muy luut alayhi salaam yàlla yónni ko ci côté Jordanie ak la ko wër bi mu ñëwee fekk ne seytaane jàngal na région ba yépp la nga xam ne mooy góor jigéen mu ne leen waaw yéen naka ngeen di dikkale lu bon loo xam ne faahisha la amul kenn koy am xel lu dul xam ne ne baaxul yéen ñëpp xam ngeen ne baaxul ba pare ngeen di ko def wantum tudd suroo te loolu mbokk mooy jural nit ki merum yàlla bakkaar benn baaxu ca ba nga ci xam ak ba nga ci xamul waaye ak a gën a bon nga xam ni lii baaxul ba pare nga fitteerlu di ko def mu ne naka ngeen di demee ci ay góor bàyyi ay jigéen yéen daal yéen réer réere ngeen seen aq boroom réere ngeen seen aq bakkan réere ngeen lan mooy nekk résultat ci li ngeen def te mbokk mboolem médecins yi ci àdduna yépp bokk nañ dëppoo ci ni dof rek kay nekk góor jigéen góor jigéen même bu ko yàlla araamul woon la ca nekk ci ay musiba kenn mënu la ko wax tey jii xataa sida bi rek partout dans le monde buñ naan la dëkk bi masalan Sénégal bi mujj dégg dañ naan la ay zéro virgule sept pour cent mais boo demee ca góor jigéen yi mën na dem ba vingt à trente pour cent loolee waxumaa nag ak yeneen feebar ak yeneen yàqu jukko ak kenn xamul loo xam ne nii musiba bu mu àndal moo tax mu ne leen yéen qawmun tajhaluun da ngeen doon ñoo xam ne mbir ñu sànq malheureusement jamono dañuy dund tubaab bi Occident de manière générale jël nañ góor jigéen googu jàpp ni ñan ñooy qawmun tajhaluun mooy ñi toléréwul góor jigéen pour ñoom képp kuy xeex góor jigéen da ngaa tardé képp kuy xeex góor jigéen xamoo droit de l'homme képp kuy xeex góor jigéen dañoo war a dal sa kaw attaqué la waaye góor jigéen kay loolu da ngay gis ni lu mat lu sax la loolu nag mbokk benn combat la boo xam ni yee leen ci njaboot bi bari na ay film yoo xam ne ni dañ koy jàngale góor jigéen seen internet la ca nekk ci ay film yoo xam ne nii waxuma ay film ay réseau yoo xam ne góor jigéen yi ñoo ko moom am na ñu ci recensé loo xam ne ëpp na 400 te loolu at yi ci gannaaw la loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax yal na yàlla laabal ñu laabal suñu njaboot mi ngi doon Cheikh Ousmane
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء وأنزل لكم من السماء
23.
ماء فأنبتنا به فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعقلون barakallahu fikum kon suñu borom mu ne fama kaana jawaaba qawmihi nekkul woon tontu xeetam ba illa an qaalu axriju aala luutin min qaryatikum lu dul ñu ne génne leen njabootug luut ci seen dëkk bi innahum unaasun yatatahharuun ñoom day ay nit yoo xam ne dañuy laab-laablu fa anjaynaahu wa ahlahu nii lañ musalee luut ak njabootam illa mraatahu qaddarnaaha min algaadirin xanaa lu dul soxnaam sa day dogal nañ mu bokk ca ñay des gannaaw wa amtarna alayhim matra daa di tawal ci ñoom ab taw fa saa matrul munzarin ak a bon waay taw ña nga xam ne dañ leen xupp ba pare ñu lànk qul alhamdulillah neel mbooli mi cant ñeel na yàlla wa salaamun ala ibadihi alladina stafa la nga xam ne mooy ak mucc ñeel na jaamam yi nga xam ne da leen a tànn allahu xayrun amma yushrikuun ama ndax yàlla moo gën wala liñ koy bokkaaleel am man xalaqa alsamawati wal ard ama ndax ki nga xam ne moo bind asamaan yi ak suuf wa anzala wa anzala lakum min alsamaai maa mu wàcce jëli ca kaw asamaan lii di ndox fa ambatna bihi xadaiqa zaata bahja ñu daal di ci meññal la nga xamee ne nii saxal ci ay jardin yoo xam ne zaata bahja mooy boroom taar la buy bégalaate ñel ña koy xool maa kaana lakum an tunbitu shajaraha yellul ñeel leen mukk ci ngeen di mën a saxal la nga xam ne mooy ay garabam a ilahun ma allah ama ndox yàlla dana am beneen ànd ak yàlla bal hum qawmun yaadiluun la am kay mooy ñoom xeet lañu boo xam ne dañuy utal yàlla subhanahu wa taala ay moroom mi ngi noonu mbokk kon suñu borom day wax ni yonent yàlla luut bi mu waaree xeetam xeet ba lañu tontu mooy ñii nañu fexe génne leen ci dëkk bi lii nga xam ne mooy histoire buñ jàngoon ci saar yi nga xam ne jiitu na la xewoon démb mooy xew ba tey ca moo di ne tey jii mbokk boo demoon tey dëkk yu bari ci Occident da ngay gis ni lenn ci xale yu jigéen yi muuru ñu ne leen ñii kat kenn du leen toléré ci école yi kenn du leen toléré ci la nga xam ne mooy service yi lan moo waral loolu mooy ngir ñi ngi jëfe la yàlla subhanahu wa taala santoon xatta diine christianisme suñ la waxee mariama ci seen église ya ma nga muuru ba daj loolee ñu ne déedéet xale bi jigéen bi def poo ji neen kooku mën na ñëw xale bi jigéen bi def mbaggi neen mën na ñëw yow mi sol sa jumbux awut sax mën nga ñëw waaye am maa koo xam ne dafa xijaab ñu ne déedéet ñii ñoom dañuy indi ay signe ostentatoire di ngistalu ak propagande ñooñ kon nañ leen dàq ñu dem loolu mbokk da ngay gis ni am na ay répercussion ba lenn ci école chrétienne yi nga xam ne dafa nekk fii ci Dakar ci loo xam ne normalul ci diine normalul ci loi ay nit lañ yoo xam ne dañuy laab-laablu suñu borom yàlla nag nee na biñ defee loolu laa ko musal moom njabootam te soxnaam bokkuñu ca mbokk suñu borom alxuraan bi façon misaal bu nekk jox nañu ko ci te moo di ne nii yow doomu aadama mën ngaa dem ba ci jamono lii di diine yàlla sa waa kër doo nga koy dund ngal la waaye fexeel sa kër nekk kërug luut bul dem mukk ba découragé jàpp ne ah société bi dañu mel léegi njaboot gi kenn mënulu leen dara découragé abadan boo ko ëpp naa def ak lu société bi yàqu-yàqu fexeel ba ñi nga xam ne ñooy sa njaboot qu anfusakum wa ahlikum naara loolu tax suñu boroom ab région lëmm mu yónni fa ab yonent yonent boobu kenn gëmu ko ku dul njabootam bal njaboot ga sax soxnaam sa nga xam ne moo nekkoon principal pilier njaboot ba bokkul ci ña gëm ba keroog ba yàlla alag dëkk ba da koo boole alag alag leen loolee kon benn misaal la bu ñu suñu boroom yàlla di jox bépp borom kër war a góorgóorlu kéemtaleen kattanam ci naka lay def ak njabootam ndax kat ëllëg duñ la laaj njabootug chinois yi duñ la laaj njabootug tubaab yi lañ lay laaj mooy njaboot gi la yàlla wërsëgaloon yow amma ba yàlla musalee luut na musale woon saalix gannaaw ba nag la taw ci ñoom ab taw taw boobu yàlla netti leen nañu ko ci place yu bëri ci alquran hijaratan min sijilin mandud ay xeer la yoo xam ne nii malaaka yaa ngi ko jële ca sawara tawal leen ko mu fokk seen bopp ya avant yàlla di wëlbati seen dëkk ba mu ne nag aka bon tawub ña nga xam ne dañu leen xupp ba pare ñu bañ a dégg taw bu mel noonu la yàlla yónni woon yonent ci yàlla nuux te xeetam bañu weddee suñu borom da leen a tawal waaye ban taw mooy taw boo xam ne da leen a labal su ko defee kon ñuy bàyyi xel toujours heure bu daan di taw yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokkoon na ci ay ñaanam mooy allahuma sayiban nafian gayra door yàlla yàlla na ñu ko defal taw buy jëriñ ba nu doon taw buy lor taw de manière générale xéewal a tax yàlla wàcce ko même bu amee ay lor ñoom lor du tey njëriñ ba cay juddoo mu ëpp fuuf lor ba cay juddoo waaye nag suñu borom yàlla ngir nattu ay jaamam léeg-léeg mu wàcce leen ndox moo xam ne nii da leen di lor ñu ngi noonu loolu tax ba jullit day war di ñaan yàlla fu mu mën a toll yàlla fiiwale ko ak taw bi mel noonu ndax jullit moom lu sa ngëm woyof woyof woyof xam nga ne benn toq ndox du wàcce asamaan illa bi iznillah yàlla mooy indi taw moo koy wàcce moo koy arrêté nu mu ko neexee ñu ngi noonu di leen di fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw na ca jàkkaam ja di xutba benn góorub arab dugg si ay yomi yàlla yónni waaye ñaanal waay maral bi tar na jur gi dee nañu tool yi yàqu na yonent bi alayhi salaam yëkkati ay loxoom ñaan yàlla subhanahu wa taala anas ibnu malik bi ñu doon nettali nee na boobu asamaan baa ngi wextal waaye nee na avant xutba bi pare ak julli bi ñu ngi dégg dund yi dal xiin bi riddi ñun ñëpp bi ñuy nibbi ci taw bi lañ nibbi loolee muy taw di taw guddi di taw bëccëg taw guddi taw bëccëg ba ajjuma dellu siwaat góor ga dellu siwaat na ko hey yu mu yàlla yónni ñaanaatal waay suñu yoon yi dagg nañ suñu kër yi yàqu nañ suñu kaza wa kaza yonente bi yëkkati mbaat loxoom ya allahuma xawalayna wala alayna ñaan yàlla subhanahu wa taala taw ba daal di arrêté loolu mbokk kon julit loolu ngay def mooy gëm yàlla mooy wàcce taw nu mu ko neexee amma ñi nga xam ne dañ leen a waar ñu bañ fa saa matrul munzarin borom bi nag bi mu paree ci loolu mu ne qul alhamdulillah sant yépp ñeel na yàlla mbokk sant ñeel na yàlla ci ay xéewalam sant ñeel na yàlla ci ay mbugalam suñu borom heure bu ñëwee fekk saay saay si nekk ci kaw suuf mu mbugal leen laabal suuf alhamdulillah mi ngi noonu loolu moo tax mu wax ñu ko ci aaya yu bari fa qutia daabiru alqawmi alladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin jullit mbokk da ngay gëm ni mboolem catastrophe yi am ci kaw suuf lii nga xam ne mooy taw bi am fan yi ñu ngi sant yàlla bu baax ñun sénégalais boo duggee ci internet bi nga xool li xew ay Soudan ay Mauritanie xew un peu partout dans le monde da ngay gis ne boo koy méngale Sénégal daal di ko ndox ñëw fi loolee xamal nag ni heure bu àdduna jaxasoo ci lu mu mën a doon bakkaar yi doomu aadama yi ñoo ko sabab loolu kon ñoo ñuy jiitee def ko te bakkaar yi bu leen yàlla alagee alhamdulillahi rabbil alamin qul alhamdulillah waaye suñu borom it mu ne mucc ñeel na jaamam yi nga xam ne da leen a tànn ca mooy ay yonentam yàlla muccal na leen ci du ñu duural yàlla yàlla muccal na leen ci du ñu wax lu dul la leen yàlla waxloo yàlla muccal na leen ca ne mujj ga toujours ñoom ñoo koy am salaamun ala ibadihi allazina istafa te ñooñi mooy yonent yi nga xam ne ka ci mujjoon mooy suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom bi nag di laaj mu ne waaw ndax yàlla mooy ki gën am la nga xam ne moom lañ koy bokkaaleel tey jii mbokk da ngay gis jaami yàlla yi la ëpp ci ñoom santatuñu yàlla sukkandikootuñu ci yàlla yaakaaratuñu yàlla keneen xudul yàlla moom la ñu yaakaar borom boobu nag subhanahu wa taala ne waaw léegi ndax nag yàlla ak ñi ngi koy bokkaale kan mu ci gën kaay ñu xool leen ne lu ci yàlla def suñu borom mu ne waaw xool leen ki nga xam ne moo bind asamaan yi bokk lan mooy asamaan ki nga xam ne moo bind suuf bokk lan mooy suuf ki nga xam ne moo wàcc taw jóge kaw asamaan génne mboolemu façon garab ya nga xam ne moo nekk ci jardin ya nga xam ne asamaanu suuf buñ daje woon bëgg benn garab rek ñu créé ko mënuñu ko créé borom bi nag ne waaw ndax yàlla moomu war nañ koo boole ak keneen di wax yàlla ak borom bi mu ne xoolal ñoom day nekk nañu xeet boo xamee ni nii dañuy jéem a utal ñoo xam ne dañ koy bokkaale ak seen borom jalla wa ala ca loolu mbokk jirit mooy la nga xam ne mooy la gën a nekk musiba mooy yàlla ak la nga xam ne mooy yàq diine lu bari ci doomu aadama yi mbokk jilit dañoo gisoon ni taw bi ni muy tóoroo rawatina ñu nekk ci bëcc ak ñi war a dem fu sori concentration bi war a am dëgg-dëgg loolee dana doon loo xam ne nii lu manqué la ñu bëggoon rek incha allah kon ñu yem fii su ko defee ba yàlla subhanahu wa taala dajale waat ñi fii di ñaan borom bi nga xamee ne nii moom mooy tànn ay yonentam di tànn ña nga xam ne ñoo leen gëm yal nañu yàlla boole ci ña gëm ay yonentam yal nañu yàlla boole ci ñi ko wéetal jaamu ko bañ koo bokkaaleeg dara وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على كل حال yéene bi moom fi nga taxawi di julli foofee ngay gis ni fokk yéene bi ànd ak yow foofu doonte ne ni comme ni nga ko waxee waa ji nga xam ni dégg na noddu timis gi mu jóg jëm ca jàkka ja kooku mu ngi yéene julli ji timis ala kulli xaal yéene daal mooy li nekk sa xol ci ne jëf ji li tax nga di ko def mooy tànk yaa ngi def jëf boo xam ne nii xam nga ni li tax nga di ko def loolu moom la ñuy tuddee yéene nekkul lu ñuy wax mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah waaw
maanaam bisu bi ñi nga xam ni dañuy leble di ci teg dara maanaam intérêt maanaam ñu leen di teg teg miliyaar yi dañuy am bàkkaar te ñoom doon na leble woon waaye nag ñun imam bi en tant que borom xam-xam dafa leeral loolu lan la ci taxawal wax.
ala kulli xaal mbokk riba yonent bi sallallahu alayhi wasallam da cee wax lu tiit lu lool ndax riba bu yemoon ci kiy joxe riba bi ki kiy lekk riba bi rek loolu amul problème waaye boo gisee riba doon lu natt bu yàlla nattoo ay jaamam yonent bi alayhi salaam dana yàlla rëbb na ci riba ñeenti nit waa ji nga xam ne mooy jël riba bi ak ki ñëw di ko jox riba bi yow mi dem ci waa ji mu lebal la cent mille francs nga d'accord ak moom ne ko cent dix mille la lay fay dix mille francs yooyu nga koy jox yaa ngi bokk ci rëbbum yàlla ka nga xam ne moom dañ koo woo pour mu bind rek mu bind li dox seen diggante moom lekkul joxewul waaye bind moo bind contrat bi kooku ci la bokk waa jee ñu woo di ko seedeeloo mu ñëw seede seedeel ni kii lebal naa ko temps dana ma fay temps ci la bokk muy ñeenti nit ñoo xam ni yeneen ci bari sam ne ne yàlla rëbb na leen ci riba loolu nag mooy danger bi nga xam ne kon moo am ci loolu amul benn jullit buy war a dem ci usurier di fa leb lu dul loo xam ne nii cas extrême nécessité la te lu nekk dañ koy natt ci nattuwaayam waa joo xam ne xëy na dafa war a opéré wala waa joo xam ne xëy na daal lu mu mën a doon ci lor yoo xam ni bépp borom xel bu ko dégg xam ni kii dafa loru loolu rek moo war a yóbbu nit mu dem di leb avec intérêt amma bu dee nii loo xam ne nii du loolu boo ci duggee yaa ngi dugg ci rëbbum yàlla jalla wa ala ñeent yooyu yàlla yonente bi alei salaam wax ci riba soo demoon ci sàngara moom yóbbu na ko ba muy fukk yàlla nag mooy dogal ci jaamam lu ko neex wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah mu ne ndax gannaaw bi nga jullee gee wala timis naafile yi da nga koy biral wala da nga koy yeelu naafile gannaaw timis ak gannaaw gee dañ koy biral lu dul ni da ngaa sës ak nit koo xam ne nii day julli comme yow yonente bi alayhi salaam dañu doon wax bu ñu nekk di sànnante alquran su doon da ngaa dem sa kër wala yow yaa nekk ci jàkka ji wala nga nekk ci fu sori foo xam ne kenn susul ak yow mën ngaa yëkkati sa baat waaye bu dul looloo looy yëkkati sa baat na dem daal yem ci yëkkati goo xam ni doo perturber ñi nga nekkal ci jàkka ji te ñoom it ñu war a jàng alquran mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam
من غير الأبرار للذين يعملون عمل قوم ليه هل يدخل فيه من يأتي زوجة في دورها
waaw ala kulli xaal ndax góor jigéen dañ ca boole ci ànd ak soxnaam ci na góor jigéen yi ànde ala kulli xaal mbokk julit loole dafa doon lu xaraam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo rëbb góor jigéen yi moo rëbb it kay ànd ak soxnaam fa góor jigéen ñi ànde loole ñu xam ne dafa xaraam donte ne ne ñu bëri ci julit ñi dafa leen a lënt ndax dañoo jàpp ne suñu borom nee na seeni soxna seen tool la ñu dikkal leen seen tool nu mu leen neexi kon ñu jàpp ni jigéen mën nga koo dikkal nu mu la neexi waaye yal na yàlla yërëm imaamu Malik mu ne ñoom day dégguñu al dégguñu arab moo tax waaye bu ñu déggoon arab suñu borom dani faatu xarsakum dikkal leen seen tool tool mooy koo xam ne ku fa ji mu sax am déet waaw ndax kiy dikkal soxnaam fa góor ñi ngay dikkee pendant cinquante ans ndax doom dana fa juddoo déedéet kon loolu ba yàllay wax naan dëkkaleen seen tool nu mu leen neexee yàllaa ngi ci jublu fa doom ji sosoo foofu nag yaa xam noo fay dikkee position boo fay dikkee waxtu boo fay dikkee loolu moom sa problème la fii ak nekkul ci jamono joo xam ni dafa am ngant règle wala dellu ci wasil waaye am maa ji dikkal soxna fa góor jigéen ñee dikkee loolee mbokk benn soxna waru ko nangul jëkkëram benn jëkkërit waru ko def ak soxnaam wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw wala ku li xaal ñëpp ñoo xam ne dañoo feeñal seenu góor jigéen ba di ko manifester ci ab dëkk wareef la ca waa dëkk ba ñu taxaw ngir xeex loolu loolu ba tey donte ne suñuy loi nekku ca sévère gam ca waroon a sévère waaye xataa suñu loi dëkk d'accord ci ba suñ jamono yi tey su ko defee yonent bi sallallahu alayhi wasallam lim ñu waxoon mooy kenn ci yéen bu gisee lu bon na taxaw dindi ko ci loxoom bu dee mënu ko na ca wax ba mu deñ donc loolu nga def mooy la nga xam ne mu nga war a def mooy xool kilifay dëkk ba ne leen ñii lii ñuy def waruñu ko fee def bu ko defee ñu xeex ak ñoom bu jaree ñu génne leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal wax naa axrijul muxannisiina min buyootikum bépp góor bu ñuy gis muy jigéen jigéen lu génne leen ko seen dëkk yi loolee kon wareef lañ def loolu lu war la mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam mi ngi noonu non waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam amoon na tool waa Makka daaw ñu bay Makka dëkk la boo xam ne nii suñu borom mu ne inni askantu min zurriyati bi waadin gayra zi zarin ñoom xamuñu woon bay lu dul lu néew a néew seen li ëppoon lañ doon def mooy sàmm màkk it nekkoon na centre bu yéefir yëpp daan aji si donc sàmm ak commerce la ñu xamoon bi ilaafi quraish ilaafihim rihlata chitai wa sayf dañ daan dem yemen dem Sham def échange loolu la waa màkk xamoon amma bi ñu demee madina nag madina ñoom ñoo amoon ay tool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu demee Madina ci jihaad yi mu doon jihaad am na ay tool yoo xam ne nii amoon na ko masalan amoon na tool ci xaybar tool boobee bi muy faatu da koo def sarax amma pour ne ndax ma su nekk baykat déedéet yonente bi sallallahu alayhi wasallam sàmmkat la woon commerçant la woon te ñaari métier yooyu mooy métier capital mbokk sàmmkat su yonente sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla mosul yónni yonent lu ñu sàmm na ay gàtt sàmm ay gàtt mooy xar ak bëy boo demee ci ñiy sàmm xar ak bëy lu ci bëri ñooy gën a dal ñooy ëpp yërmaane ñiy sàmm nag ak gileem ñiy sàmm nag ak gileem laa ngi suñu mbokki pël yi corlo jaasi du dara ci ñoom ndax nag yi ñuy amal problème amma bu dee ñiy sàmm xar ak bay lu ci bëri dañuy dal dañuy am jàmm gis ngeen loolu tax ñuy benn sàmmkat bi day dox lu bëri di xool ci àll bi loolu tax yàlla jaarale ko yonent yu bëri naka noonu it dañu ëllëg dañoo nar a nekk sàmm nit ñi amma commerce xamal ni ki gën a xam nit mooy commerçant sëñ càmm boo bëggee soxna ci kon demal ci bitig ba rek laaj borom bitig waaw kër sangam loo xam ci ñoom maa lay seedeel lii ki gën a xam quartier bi mooy commerçant bi commerçant bi nekk ci bitig bi naka noonu itamit laa jël ñu yàgg ci commerce nit day dugg si rek nga xool ko rek xam ne kii nitu jàmm la nit day dugg si nga xool ko xam ne kii nitu ay ga looloo tax suñu borom subhanahu wa taala ñaari mbir yu am solo yooyu mu jaarale ci suñu yonent sallallahu alayhi wasallam ba ba vingt-cinq ans dafa nekkoon ci àll bi di sàmm vingt cinq ans ba quarante ans mu nekk ci marché du commerce kon kooku am na maîtrise xam doomu aadama suñu borom nag doo ko yéen ni wallahu aalam xaysu yajalu risalata mbokk mi ngi noonu kon suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla dëppale ak ngërëmam adduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw xam naa 1000 francs yi ñuy barkeeloo incha allah mbokk yi bañ ko fàtte jazakumullahu xayra